ONAS dafa am nag fu mu yem ci xool loo xam ne dafa am ay ouvrage daf ci am foo xamante ne ni euh, ministère bañ daan wax ministère euh, de la gestion des inondations ak mini ñoom ñoo ñoom seen wàll moo moo jëm foofu euh, yaakaar naa une partie de jàmm gën ci la bokk ñun amuñu ouvrage assainissement bu yegg jàmm gën bu dee Grand yoof Grand yoof li xew fépp moo fa xew coppati plaque yi ñu sant faal dem def ko weccit dégg nga branchement clandestin tu sais euh, euh, réseau su fekkee ni yow da nga see war a branché da ngay da ngay contre ndox mi buy ñëw booy branché da nga ciy contre ay technique de da maanaam soo génnee sa kër doo doo da ngay da ngay bu pour nga mën a évacuer da ngay xool fi ndox mi jëm nga branché jëm fa waaye soo ko contrer su amee bouchon ci sa biir kër la jëm pour bañ a fay au lieu nga ñëw fay ñu defal la branchement bu baax defoo ko nga wut lu yomb wut sa benn plombier defar sa kër ba mu baax au lieu nga ñëw orange ñu branché la nga wut mason bu la ko defal bu ëllëgee dangay am coono bu bouchon amee au lieu mu génn ci mbedd mi si sa biir kër la jëm Grand Yoff ak feneen ak feneen te be beneen bi si des Grand Yoff euh, sooy xool ci wàllu dëkkuwaay mën naa ni c'est une zone no am na ci pàcc yoo xamante ni zone non aedificandi la zone loo xamante ni dara waru foo noonu nekk lu dul ay tool ñu ñu ñu ñu war caa béy mais foofu la la la nit ñi ñi ñi dëkke ndox nag du bàyyi yoonam su loolu amee bu ëllëg si biir ndox ma day ñëwaat teewul nag ñu ñu jëm ci biir Grand Yoff am nañ fa ñaari station station de pompage boo xamante ni ndox eau usée lay jël ak boo xam ni taw kese lay jël ñu def ci ay moyens actuellement nii fi ma lay waxee nii entreprise bu ñuy wax euh, bu xëy na jarul may wax turam ONAS jël na ay prestataires yooyu ñu nga fa liggéeyuñu dara lu dul saa ngoon lu dul lu dul lu dul nettoyer dindi dindi garab